ma am ak moom séance d'explication naka yow lii noo ko mën a defee. Mhm. Moodu muy jooy muy Moodu mii mhm. <laughs> su ma la nee femme la xam naa li ma wax muy jooy xàcc. Mhm. man nag xanaa nga xalaat ma sax. boo xalaatul sa bopp ma man nga xalaat ma. xalaat tamit noonu yi ñu am fii. ak man ñii niñ ma bañee. ak surtout technicien boobu ka kalaame. nga xam ne bokkoon léegi lañ nekk ay xarit man ak technicien boobu. nga xam ne bokk na ci teg ci euh, agent Walfadjri ñi ma gënoon a ñoo xam ne man man man neexuma ko woon mm-hmm. waaw na dama waaw te sax ci réunion ba wax na ko fa ah, waaw ci réunion ba mm-hmm. wax na ko fa mm-hmm. nee lu tax Modou def yii yëpp technicien dañoo gaaw waaw c'est parce que man maa teg ci kawam nangam nangam te moom moo ko mag moo ko ëpp expérience nangam nangam kanam kanam et c'est ah. vrai parce que man Modou man ni ma amee ascension noonu laa ko yóbbaale dafa ne comme Sonko mii rek ay ñoom jomaay ñu yóbbaale mhm. Mhm. noonu laa ko yóbbaale mhm. ma ma xas ko muy muy ma ne ko nag Sidi lii ak lii ak lii la bëggoon a def léegi euh, ma ne ko man démb si guddi nii laa fi def wax naa ko nii naa mu ne man kay kii bi vigile bi wax na ma ko nee na dem xaaju guddi nga fi ñoom ma ne ko waaw ma ne ko nag parce que si après dafa am une contrepartie loo xam ne dama ko wax fii mhm. moom xam na li may wax mhm. ndax comme ni may wax rek ku ñàkk jom bëgg di fàtte mhm. ñu wax la ndax ku jàkkaaloo ko man xamal li ngay wax ndax damaa xam téye toog di femme d'état nag mais nag comme dañoo comme Sénégal dafa yàqu léegi sutura amatu fi war ma amatu fi lu bon la ñu bëgg amuñu kóllëre amuñu ngor dañuy toog di weer seen bopp man ku ñëw weer sa bopp ma jàppale la ci nga gën a mel na géej hmm. daa bëgg doon géej dina doon géej ndax désormais ku tapé youtube teg ay vidéo di nga teg sama yii hmm. dëgg la waaw damaa gis ne yaa ngi ci ay quarante neuf mille hmm. ci tiktok bi nañ ci dem xale dina capturé dina fës fu ne plus de mille personnes en temps réel nii waaw dina fës fu ne parce que Sénégal yi la bëgg xam Sénégal yi ñu bëgg yii te man ba fu nekkee vingt quatre ans ba tey ak attaques yi ñuy bari kenn musuma dégg moo ndax du ma wax kat ginnaaw bi nga protéger li lépp ci Modou. ma protéger ko. Mm. ma am contrepartie. Mm-hmm. contrepartie boo xam ne dama ko fi wax. Mm-hmm. waaye moom xam na. Mm-hmm. mais après daal li ma mën a résumer mooy dafa simmee ko ba set. parce que Sidy Lamine tamit ba ma fexee ba mu Sidy ne ma du ma ko porter plainte du ma ko dàq. définitivement. dinaa maintenir teggi responsabilité ba. te dafa bëggoon laal ci salaire bi. te je pense que sax boo damay bañ a mais je pense que am na sax lu mu teggi. dafa teggi na est-ce que teggul prime responsable xaw am na lu mu teggi daal mm. quelque chose mais dama ko fàtte ba te bëggumaa wax lu ma wóoru mm-hmm. dama ko fa foog ma vérifier sama sama kii donc mm-hmm. euh, mais Moodu xam nga faale woo ndax maa ko doon jox mm-hmm. Moodu mi ngi may déglu salaire Walfadjri mosu ko faale man maa ko doon jox lu ma am jox ko dëgg la man noonu la ma yàlla bindee moo tax pour nit song ma daan ma dina jafe ndax dañuy lekk sama alal man te duma ci calculer ndax ma sama alal na maa moom ku ma neex laa koy may. Mhm. mais Modou ba mu ànd ak man namul rien ci àddina. Mhm. yëre sa dama ko mën a jënd yëre saa yi ma voyagé waan ñëw indi ko yére am na yëfam. Mhm. naa premier smartphone mu yor maa ko utal. waaw lu war a waa de moom moom déglu ma rek ak soxoru boppam bi nga xam xaw ma ko woon ak bon xam nga nit lu mën a xew. lu mën a garaaw mais man maa ngi nii ba léegi man kenn du ma dégg ma wax lu ñaaw si Sidy Lamine Niass. parce que fàttali damay fàttaliku ne moo ma teral moom ma ña ko jox salaire mm-hmm. foofu laa ña liggéey ci àddina mm-hmm. duma ko fàtte mm-hmm. waaye ñii Sénégal léegi dafa yàqu ay jaam ñoo fi ne ndax jaam weesuwul ku la teral nga toog ci télé di ko fenal man man Modou bu doon dafa toog ci télé waxal ma li ma xamal dëggantaan mooy teral naa ko defar naa ko xam nga wax na lépp ba des li ma ko defar bu fenam na ma bañ a déranger bu fekkonte ne wax na li ma ko defaral xam nga ñun ay journalistes ñun dañu xam thèse ak antithèse uh-huh. yow bala ngaa teg antithèse bay conclure mais tegal thèse. parce que nit ki boo taxawee nit ki sama xarit la woon maa ko gënoon maa ko gënoon te wax moo ko wax ay waxam la. maa ko gënoon a jege ci Walfadjri. maa ko présenté jëkkër jëkkër jooju mu daan présenté. dèjà nee na kon day macro man est ce que noonu naa ko ñu macro est que man man man damay macro benn ñaareel bi est ce que macro macro lu rafet la ba nit war ko ndamoo tiitoroo. fii kenn ku ne am na ko la xam ne moom ni muy li muy fenee noonu te ba tey maa ngi wax ci télé laay wax man moom moo xam makro man xaw ma makro benn man man maa dul ku ñuy makro man sax boo góor gis ma fan la ma góor di gisee maanaam dama laa nopp ndax man génnu ma sama kër gii moo tax ñaari góor ñaari jëkkër laa mos a am ci àddina mhm. ñaari jëkkër yépp fekk ñoo ci mbedd fekk ñoo ci boîte fekk ñoo Elage Baar moom muy wax. Mhm. mi ngi may dégg. Mhm. man 2009 sax ba ñuy divorcé laa ko dégg. Mhm. man wax naa du ma xotti page man nu ma toon damay xotti. lijjantiwu ma ko dégguma ko lijjantiwu ko xaw ma ni ma xaw ma mi ngi dund maa ngi ko ñaan yàlla mu dund xaw ma mu ngi def def na leneen. man loolu man su ma xasee ba pare si yow pare naa si yow. man noonu laa mel dama lay bëgg. wala ma bañ na. Mhm. bu ma ci mën a c'est définitif. Mhm. suma ma bayina bàyyi naa. Mhm. man xaw ma bàyyi ex ex ay xaritoo ay ex yo je je ne connais pas ça. xana ñu am doom. nga xam doom dafa am àq. donc elage bar, mom muy doul di fen nan moo ma ko présenté man su ma xanaa su ma fayda ak luma ma waye de waye de waye mais sama agent nee la man noble la man man dama am part des man dama xam part des choses. yeen dama jaxasoo yeen yeen yéen kañ ngeen may gis nii. du magis ma gis. gëj nañ laa gis kay. parce que man dama am ñun man je suis administrative. Mhm. ay nit mënoo leen jiite ba pare am noomel ak ñoom. Mhm. parce que bu subaa bu leen bëggee jox chaîne de responsabilité. day compliqué parce que bu leen mhm. bëggee jox bu dee yéen yéen tàmm naa kafanteeg yéen reetaan na yéen nangam. mais bu subaa sama joxe ordre ne doo ko def. mais man ñàkk naa fayda waye dinaa mata dinaa man ba sama agent surtout nag sama cog. sama jaam koo xam ne ma presque Modou xam nga la daax sama xaj la tutu chihuahua boo xam ne nii. takk takk takk euh, euh, takkukaay doo ci corde ci baat bi rek rek rek laa ko def. waaw mi ñor ma nekk sa kër ga la. est-ce que yaa ngi may dégg. ma ne su waaw waaw xoolal Modou Diouf sama xaj la boo xam ne takk takk chaîne ci baat xëcc ko nii dong laa deful waaye man kooku man naa danaa mata di ñàkk fayda. Mm-hmm. ñàkk personnalité dana ko am personnalité laa. Mm-hmm. mas kooku nga xam ne sama simple coog ndax ku ma sa nekk directeur am nga coog. Mm-hmm. xam nga kuy coog. waaw man coog dina ma présenté xanaa dafa xam lu baax ba ma ma koy présenté par hasard dama génn sama bureau di yéeg élage baa mi ngi may seetaan moom mun a duul moo tax muy fen waaye euh, xëccu sama loxo wala xëccu man mu moo damaa yebee noonu <laughs> man yéen xam ngeen ma xam man Adama Fall daa ñëw ngeen man Mour damaa yebee yab gu yab gu doy ne naan dafa may jël dama présenté góor dafa maa yebee yab boobu man kan moo ma yebee noonu ci àddina ba may présenté góor man man maa doon yéeg escalier yi jóge sama bureau di dem régie fu ñoom Modou nekk mbëkkanteeg waa ji age ñu mbëkkante mu ne ma eh, xam nga ku may doog gis man ku ma xamul Aïssatou Diop Fall ni nga gàttee ni nga ñiiwee ni nga nangam nangam nangam ñu tooñante le courant est ndax dama am xaw ma temps yi ñoom ngelaw ngelaw doon defar ay vidéo yooyu man na ko mi ngi fa laay dem sax ñu dem ñu ko ne tooñante noonu lañu xamante ñu jëlante numéro mm-hmm. foo ma taxaw fa man ngom. Mhm. je le nag vraiment sans tagg sama bopp. dëgg la mhm. mais man góor yàlla dëgg bu ma sëkk. Mhm. moo mën a doon sama borom kër. parce que nag man du ma jigéen bu ndaw. am naa caractère am naa personnalité tàng naa. yambar man man yambar moo mënul ci man dara. moom ni mu ko waxee Modou day mel ne El yambar la. mais man man kilifa gu doyna man ak man ni ma sénégalais gis sen retour bi légui mu fay tang gi ma tang mhm. man yambar man mhm. yambar atanuma yambar moo atanu attanu mhm. man ak elage commencé doxal suñu doxal man ma ko yegal moodu ma la doxal nañu presque ay 2 3 mois ma kay dogo wax ndax boobu fekk na yu bari yakku sama digënté légui mu fay cinq minutes la parce que nak affaire bé loolu daf day bàyyi ay traces yaa ngi may dégg maa ngi nga na yoo xam ne bu jaaree si diggante day yàq day yàq parce que tamit damaa commencé maa mm-hmm. Mm-hmm. am na yu bëri yu yàqoo sama diggante affaire ko si mm-hmm. am lu bari loo lu mu yàq sama diggante moom mooy dama dama dama dama xam léegi ne Modou est capable de faire quelque chose comme ça ma am su sama suñu diggante man moom changé ma commencé man tamit parce que du ma dof am na yoo xam ne bu ko nit sañee def te mosoo ko foog mosoo ko imaginer. Mhm. Euh, Seydi moom daf ko bàyyi woon complètement mhm. ci laa ñëw na wax la ci lu tax mu jaxase ma ak Seydi. Mhm. Seydi bàyyi woon man man mënuma ko woon bàyyi. dëgg la ndax ñu mais am na lu changé sama diggante ak moom. donc moo tax ma ne la. nekk naa El ay 2 3 mois. man maa ko waxal sama bopp ne ko man ak sa copain boobu El Hadj Ba ñu ngi commencé génn. mu ne ma am ah, mu xawoon ma sax ne ma man ma man grand bi waxuma la parce que El Hadj grand moom la. Mm-hmm. du booyam de ku ko dégg da ngay defe mm-hmm. Mm-hmm. kilifa la. man kilifa dama doon ànd ak ku dëgg la yambar mais man maa ko parce que ci moom laa donc moom moo tax ma ni euh, boo déggee ni muy waxee rek. bala maa ko la maa kii da dangay foog ne ku ku wayadi ki muy wax. ku wayadi la ne moom. dangay foog ne ku muy waxal jaam la ne moom. mais ki muy waxal kilifa la. Hmm. du xaritam connaissance am la grand la koy woowee koy woowee grand kooku. yaa indi dafa la yar. dëgg la man maa ko waxal sama bopp kon bu ne taxaw du duul naan moom moo ma ko présenté présenté wu man kenn du ma makaro. Hmm. te moom amul màqaama taxaw naan yabu ma wala ñemew ma ñeme gu doy ne naa daf may makaro moo léegi la am fit. Hmm. waaye amu woon fit avant nee ku ma yeb si ñoom damaa sori rek waaye su ma taxawee dañuy puub seen tubéy ñoom. yaa may dégg bu baax. yow la déglu. donc foofu noonu la demee pour mu leer. Mhm. donc léegi nag affaire boobu mu bàyyi trace. moo mhm. du wàññeeku bu baax ci wal Walfadjri. Mhm. le jël responsabilité xaw ko wàññi. mu kër kër yi dafa teg moom tamit. man ñemetuma wax dara ndax ni mu demee tax. mu xat fa quelque temps après euh, ay deux ans trois ans après Moodu euh, fekk man. sentiroon naa loo xam ne loolu duma comme ni ma wax du yëpp laay wax. Mhm. Mhm. maax Sidi ñu am problème. Mhm. c'était la première fois man ak Sidi ñu am problème. problème boo xam ne encore une fois Modou xamu ci dara. te du ci mus a xam dara. du problème pale bi. déedéet déedéet déglu ma rek ma ñëw. ñu am problème. Euh, problème bu rëy bu sérieux. boo xam ne euh, madame Faye encore une fois ak ñoo ñoo ko xam. mais Modou xamu ko. Euh, man ba ma sentiree mm-hmm. ne et puis tamit j'étais fatiguée ndax dama fa yàgg sonn jigéen laa nit laa maa ngi doog a marié y avait plein de choses j'étais pas j'étais pas j'étais fatiguée daal j'étais mm-hmm. fatiguée mm-hmm. ma bëgg a jóge Walfadjri pour dire vrai te surtout xamoon naa tamit ne laa fin était proche mais yoon laa doon ut bu rafet euh, Karim nga xam ñep xam nañ sama digënté ak mom Karim wad Karim mhm. Mhm. euh muy sama frère. Mhm. de ngeen fi mané ñep dafa ñep mi xam nañ sama sama sama diggante. ak ak PDS. Euh, muy sama frère euh, ma woko wax ko. Euh, sama digënté ak si mënuma fekk dafa am leneen luma bëggoon bëggoon. Karim na ma. ñëwal fi fekk sama bër imaam tamaroo bii mhm. jour boobu Moodu mii moo ma dawalal sama oto mhm. yaa ngi dégg mhm. mu dawal ma sama oto dem ci yoon bi ñu waxtaan ma gaari mu dugg waxtaan ak waxtaan ak Karim wax ko li fi nekk mu conseillé ma ñu wax mu am lu ñu defante man ak Karim léegi bañ génnee. Mhm. Karim sax ne ma Karim ci boppam. Mhm. ñu waxtaan Karim ne ma est ce que man man tey maa man tontu Sidi la ko doon wooyee mu ne ma est ce que man du ma dem waxtaan ak que bu vraiment bëgguma nga jógee Walf. Mhm. ma ne ko non non dafa tombeek man tamit ma sonn. vraiment dama sonn parce que mosuma jël congé ba léegi nag sax man man tàmm jël ay congé. congé maternité laa mos sa jël. ma ne ko donc Euh, dama bëgg ma ne ko c'est pas la peine mais ma sama bopp je veux partir. Mhm. mais damaa bëgg mu rafet daal. Mhm. bëgguma mu ñaaw affaire yooyu ñu waxtaan léegi bañ demee ba nga xam ne affaire boobu lijjanti nañ ko Modou waxuma ko dara de. Mhm. bañ demee ba nga xam ne affaire bi lijjanti na ko ba ba ñu demee nag ba ndax ba may delluwaat parce que dem ci Karim plusieurs fois. ce qu'il ne sait pas. Euh, ba ma demee ba nga xam ba pare foofu nag Cheikh Diallo laa woo. Cheikh Diallo mu doon ànd ak Karim te mu tam moom léegi. waaw Cheikh kon xamoon la mu ànd ak Karim. waaw déggoo waaw kay te muy sama xarit. Mhm. Cheikh mhm. Diallo. Mhm. ma woo ko ne ko grand man daal li sotti na nangam. mais Sidi laa xamul nu ma ko koy waxee. mu ne ma Cheikh Diallo na ma mais demal woo ko nga toog ak moom fekk temps yooyu maa Sidi c'était tendu. ñi xam rek ñoo xamoon. mais nit ñi nii mënuñu ko woon gis. léegi euh, par contre Modou juñu naa ko tuuti na ko. waaw si di temps yi maax moom ça va pas mi mm-hmm. ne man kay sentir naa gis naa euh, loolu fekk li muy wax naa oto bi ma bi ma bi ma bi ma Sidi mm-hmm. dix millions ma mm-hmm. jox yow man Sidi Lamine moom moom dix millions lay doog a dégg man Sidi li ma lekk ci moom ëpp na dix li ma mayal moom ëpp na jamaa bi ma njëkk a yor jamaa Sidi moo ko may ak papa Ahmed Khalifa Niass tey rek sànq rek woo ma loo gis nii Ahmed Khalifa voilà xoolal mhm.